centrale de Louga bi ñaari waxtu bi waxtu ñaari waxtu jotee effectivement bi ñu yeggee si marché bi eh, dañu gis ne am na lakk bu fi am mu mu jot a laal eh, juróomi cantine mais amoon na kant ki lakk bi xaw na propagé wu daal ba laal eh, yeneen ñeenti ñaari fukki cantine donc euh, mais quand li ci am euh, maana mooy daal euh, on est parvenu ah mujjee nañ daal am dëgg ci kaw lakk bi. en tout donc ñaari fukki cantine ak juróom-ñeenti table ñoo lakk. lakk-lakk yi nag mënuñu leen waxagum lan moo ko indi parce que xam naa à l'issue police dina def enquête am pour mën a vraiment déterminer li tax ba marché bi lakk. liggéey bi euh, yomboon na yomboon na apport euh, euh, yoon wi jëm biir marché bi xaw xat tuute ah fay nañ daal sans am jafe-jafe yu bëri ndaxte gis ngeen ne quarante mètres rek am na benn bouche d'incendie boo xamante ni moom la ñuy jëfandikoo pour am ndox bu doy pour mën a fay lakk bi ah ñiy fréquenté marché bi daal li ma leen di dënk mooy ñu jël seen matuwaay yëpp ah ba incendie yi bañ a am ci marché ndaxte marché moom ak euh, xat-xat yi ak nu mu bindoo daal saa yu fa lakk amee moom faw euh, euh, kii xaw a jéggi dayoo quoi kon nag voilà comme moyen indi nañu ñaare oto yu mag pour fay lakk bi ak benn oto bu ndaw buy eh, transporter nit ñi moo indi renfort bi d'ailleurs au delà de véhicule oto yooyu indi nañu tamit ñaari fukki sapeur ak juróom ñoo tax ba lakk bi yaaw ga eh, kii gaaw ko lépp naa maam Kor Sall